asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu mbokk yi déglu Safina ci 98 euh, point 2 ñu dellu si suñu émission Safi environnement comme ni ñu koy defee. ay bés bu ne fii ci Safina FM 98 point de dugg ci environnement boo xamante ne tey juridico social la ñuy wax dinañu waxtaanee li nga xamante ne moom mooy jafe-jafe yi nga xamante ne yëpp dafay aju wala dafay tënku ci li nga xamante ne moom mooy état civil utum këyit ñu koy déclaré luñ ciy wax nu ñuy def ba am ko boo amee problème naka ngay def ba mu saafaraw loolu yëpp tey incha allah mbokk auditeurs yi déglu Safina FM ci 98 point 2 daañ ci xuus daañ ci dugg bu neexee yàlla ñu am euh, euh, juriste boo xam ne moom mooy suñu invité mu tudd Dialy Dia di juriste membre de l'AJS dinañu dugg ci association bi tamit di AJS ñu waxtaanee ko nit ñi xam euh, bu baax a baax lan mooy njëriñu AJS di waxtaan tam ci projet yi nga xam dañ koy tëral pour dimbale askan bi ginji leen mbokk yi nag nuyu nañ ñëpp ziar nañ ñëpp ku nekk foo toog foo nekk ak ni nga toogee si nuyoo ñu jiital ci. kilifa kër gi di Thierno Hamidou Bane mi jóge léegi-léegi ci plateau spécial bi ñu doon def ci Finata wax ñu waxtaanee programme ñi nga xamante ne moom la ñuy dëgmal ci loolu ma euh, nuyu équipe technique bi yëpp Samba Jibi ak Birane ak ñoom ñëpp macha allah nuyu leen ziar leen nuyu rédaction Safina FM 98 point 2 ñoom tamit macha allah jaajëfal leen tatagal leen ci liggéey bu am solo bi ñuy def euh, pour mbokk auditeurs yi mën a am information yi ni mu waree loolu nag euh, ñu dalal suñu gan di Dialy Diaboulo ñu nuyu la ne la bismillah ci kër gi waa merci madame Ba ñu ngi lay fay euh, di la jaajëfal ci invitation bi merci. Mhm. macha allah gannaaw ba ñu la nuyoo nga fay ñu ñu lay jaajëfal vraiment ci teew bi nga teew ku nekk xam nañ tey jot yombul. nga bàyyi euh, sa liggéey ñëw pour def ak ñun une heure d'émission war a dawaat delluwaat ci liggéey bi ci loolu euh, ñu tàmbali AJS nga bokk mu nekk association des juristes di Sénégal AJS lan mooy liggéeyam. Euh, association des juristes sénégalaises mhm. euh, Ben courel la bo xamné dafa dajale ay jigéen ñi nga xamné ne dañoo jàng droit manam walu yoon képp koo xam ne jaar nga université ba am sa maîtrise euh, moment yi ba am sa master donc euh, mën nga nekk membre association association bi nag association ab bi non lucratif la association sociale la association éducative la parce que dafay jàppale bépp jigéen euh, li ñu yëkkati daal mooy fexe ba àq ak yelleefu doomu adama, ñoo ñoŋal ko ci mm. réew mi àq ak yelleefu jigéen particulièrement ak mm. xaleel

nek nga membre association des juristes sénégalaises mhm. mais aussi tamit dañuy content ñun ñi nga xamné ne en tant que ndaw lañ ñu tété ñu batay ñu mëna a ñëw toog ci plateau di défendre li nga xamné ne may mooy ak ak yelleefu jigéen mhm. donc euh, association bi ñoo ngi Dakar am nañ sept boutiques de droit am nañ deux à Dakar Pikine ak medina am nañ benn bu nekk Kébémer am nañ Thiès am na Kaolack am na Ziguinchor am na séeju am na Kolda donc euh, di wax que ni bépp jigéen boo xam ne am nga yaa ngi dund métital mhm. wala nga gis kuy dund métital mhm. mën nañ laa joxoñ bërëb yooyu mhm. boo demee service yëpp c'est gratuit dinañ la teeru dinañ la tatagal dinañ waxtaan ak yow dinañ la dalal

non non amul goor lu waral lool. <laughs> loolu c'est un choix. euh, parce que am nañ ay ay góor yoo xam ne dañuy jàppale mais association moom pour nga nekk membre ay jigéen kese kese kese ñoo fa nekk. Mm-hmm. parce que amoon na association bi euh, au début ci suñu suñuy nopp nettali nañ ñu ko. Euh, association amoon na boo xam ne dafa boole góor ñi ak jigéen ñi mais à à un certain moment

non du parce que ñun femmes juristes yi képp xam ku nekk xam na fu ñu mënti nekk. Mhm. li nga xam ne franc parler audace moom macha mhm. mais toll ne il a fallu que jigéen ñi génn. ñu wane que ni ñoom jigéen mën nañ mais aussi tamit particularité bi nga ne la besoin jigéen di am moom la jigéen di am ci wàllu àdduna ci am na loo xam ne da koy am te du ko bokk ak góor ñi boo ko doon expliquer ku góor fii ba suba mun na ko bañ a mën a comprendre. Mhm. mais ñoom ñu am audace su génn boobu metti woon na. parce que mhm. nee naa association bi léegi mu am cinquante ans. Mhm. Euh, boobu metti woon na si euh, wàllu jigéen ñi metti woon na ci jigéen mu génn. wax ñu dégg baatam vous mhm. woon na si jigéen mu génn affirmé wu mhm. mais ñoom elles ont osé mettre sur pied cette association là de mhm. macha allah te ba tey mi ngi dox. boobu ba tey am na ay góor yoo xam ne vraiment ñu ngi ñuy jàppale. am na góor yoo xam ne bon si suñuy idées aussi à chaque fois dañuy ñëw fekk si ñu si. su le plan juridique sur le plan du droit dañ leen si gunge sur le plan du droit sur le plan du plaidoyer. foo xam ne rek euh, soxla nañ leen fa dañu fay fekk. mais pour nga sois membre association. tu jigéen impérativement Si amul jigéen nga nek nga nek comme par exemple tu as fait chez Hanta, am nga sa maîtrise wala am nga sa licence euh, même bo jàppul ci dara am nga possibilité intégrer foofu wala du non lay démé waaw comme ni ko ENA yi di waxee bu fekkee am nga sa diplôme rek mën nga mën a intégrer nga jóge école privée wala école ci université publique yi wala université privée yi mën nga ñëw nga bokk mais aussi tamit association bi nee naa dañu am ay boutique de droit te boutique de droit yooyu ay structure de formation la parce que ñun ba ñu génnee université foofu lañ dem ñu tàggat ñu leen ñu tàggat ñu léegi bu ñu la tàggatee foofu mën nga toog foofu nga liggéey comme ben prestataire wala employé mhm. mais mën nga tamit beneen ONG beneen structure beneen entreprise soxla la nga génn ci association bi dem foofu liguey ci sa biir wax nee nga ñu am nga am ngeen sept boutiques de droit ci sa biir wax nee nga ñu c'est une association à but non lucratif fan ngeen di moyens yi nga xamante mom moom liguey pour mën tenir euh, les boutiques moyens yi ñi liguey pour euh, tenir les boutiques li ci jiitu moy état parce que état reconnaître na len bien sûr mi bien sûr état mi ngi accompagner parce que tamit euh, lépp loo xam ne ñu ngi koy def par exemple état mi ngi accompagner lepp lo xam ne ñu ci ñu ngi koy def mi ngi siy jàpp si boutique de droit yi li leen di permettre ñuy fonctionner amna ay euh, subvention yo ay moyens financiers yo xam ci bureau euh, ministère lay jóge wala si bureau yi genre yi. Mhm. ñu ñëw di liggéey li liggéey ak boutique de droit mais aussi am nañ ay partenaires financiers internationaux. comme les ONG les structures euh, de l'USAID et tout ça. Mhm. tay machallah allah am nañ ay. fonds yoo xam les ñu ngi leen di jàppale bu baax a baax. parce que boutique yi bu ñu mënee dox association bu mënee dox c'est parce que dafa am ay partenaires financiers. Mhm. wax naa que ni ku fa ñëw doo fay donc li tax ñu mën a les victimes mhm. c'est parce qu'on a des partenaires financiers waaw te vraiment on a la confiance des bailleurs mhm. et macha allah booba tey mi ñi ngi doxal te mhm. dara ñaawul loolu moo leen may euh, possibilité ak chance ngeen mën taxawal projet bu mel nii tey ngeen ñuy wala ñuy jambat li nga xamante ne mooy askat wi lu jëm ci état civil ñu war ko waxtané tay euh, ñu gis ni état civil doon na euh, mbir moo xamante ñu bari dañ ciy am gàllankoor la lan état civil pour population bi ñu xam ko lan la ba euh, financiers mhm. que projet bi tax ñu ONG mhm. xarxa coopération espagnole

Euh, bokk na ci état civil mhm. donc état civil nekk na loo xam ne ay gàllankoor la am mhm. nañ si ay insuffisance yu bëri ñu ñëw di jàppale état bi pour que ni état civil nekk loo xam ne c'est une réalité boo xam ne ñu mën ko saxal fii ci réew mi ñu fexe ba problème état civil du am mhm. donc projet bi deux ans la woon 2022 ba 2023 dañ koy déroulé mhm. donc sensibilisation sur l' état civil bi ñuy def ni si la bokk mhm. donc euh, pour ñëwaat ci sa question bu may définir état civil dama naan état civil mooy li nga xam ne moom mooy nit parce que nit mën nga dox mën nga wax nit nit la mhm. mais ku nekk li nga xam ne ci la ñuy sukkandiku pour mandargaal la jox la tur jox la sant mhm. bu fekkee am nga borom wala amoo borom kër mooy état civil mhm. donc mooy li nga xam ne daf lay mandargaal ñu jox la tur jox la sant euh, jox la tamit bu fekkee am nga ay doom ay tuut tànk loolu yëpp dina permettre état civil ñu mën la ci identifier identifier aussi sa askan ak sa situation matrimoniale lan mooy njariñam nag loolu njëriñam am na solo parce que existence juridique nit mën nga judd nekk nit mhm. mais juridiquement parlant mhm. buñ nee si wàllu droit kan mooy nit il faut nga am état civil donc existence juridique bala nga kaa am il faut nga am état civil mhm. moo tax kayitu juddu am solo yeneen kayit yi kayit am juddu am solo carte d'identité aussi am solo. Mhm. loolu moo moo tax état civil lu am solo la. Mhm. di wax que ni am na solo ba nga xam ne tey kuy dund mun ngaa am état civil. Mhm. boo demee ba génn àdduna. mën nañ la utal état civil xam naa dina ñëw ci kanam ci waxtaan bi. mais aussi tamit euh, boo demee ba am borom kër. wala ku góor ki am soxna. Mhm. Euh, état civil loolu yëpp da koy jël en en compte. ci lool ñu xuus euh, euh, dugg ci beneen question bi nga xamante ne day laal li nga wax léegi nag yan différence yan yan yan yan yan yan yan pàcc laa koy woowee wala yan yan yan acte d' état civil ñoo am. état civil boo ko déggee mhm. moom mooy li nga xam ne ni ma ko waxee moom mooy màndargaal nit ki mhm. mais aussi tamit nekk na li nga xam ne moom mooy topp nit ki bépp jéego bu mu teg si wàllu mhm. société bi ci juddu ba ci gaañu mm, waaw bu ci nekk am na pàcc boo bépp pàcc boo xam ne wala bépp jéego boo xam ne mi ngi koy dox si àddunaam rek état civil daf ko si tomb topp léegi état civil tam boo ko waxee xel yi dina dem ci service d'état civil yi nga xam ne moo nekk ci maire yi mhm. ñoom tamit état civil lañ leen di woowee parce que ñoom ñooy joxe at yooyu mhm. donc nit bu juddoo day am état civil loolu mooy déclaration de naissance bi buñ ko defee mhm. mu am bulletin de naissance am euh, extrait de naissance mhm. mais aussi bu demee ba am soxna wala mu am borom kër mu am li ñuy wax certificat de mariage mhm. bu divorcé mu am certificat de divorce yàlla tere bu génnee àdduna tamit ñu defal ko certificat de décès donc loolu mooy wax wan n'est ni nit ki nekkoon na fi jóge na fi wala toll nañ fii ci àddunaam fii la dundam toll loolu yëpp état civil daf koy jël en compte. waaw ñu gis ni état civil peut-être buñ koy commencer dañ koy commencer ci acte de naissance lan mooy njëriñu nit ki juddu nga déclarer ko mu am kayit. nit ki pour mu judd nga déclarer ko mu am kayit. Mhm. lii soloom. Mhm. am na dayo torop loolu moo tax nit ki mën a exister. Mhm. ëllëg ak sibir buñ koy màndargaal ñu ne diwkat mi ngi nii lan mooy màndargaal diw mi ngi nii mhm. mooy état civil mhm. donc bu juddoo rek war nañ kaa utal li nga xam ne moom mooy état civil mhm. te yaakaar naa ni parent yi waruñu ko sàggane te dem nañ ba code de l'enfant bi ñu nekk di bind nii euh, jox nañ ci dayoo li nga xam ne moom mooy bàjjenu gox yi nijaayu gox yi ak acteur communautaire yi leader religieux yi ku nekk même imam bi bu tuddee doom war naa euh, soññ ay waajuram pour ñu dem utal ko état civil ndax loolu waaw dafa am solo dafa am solo kan mooy délivrer acte de naissance officier d'état civil moom moo koy délivrer bu fekkee tout tànk bi dafa juddu dañuy dem déclarer ko ci mairie bi. da ngay dem taxaw rek nga ne. da ngay dem nga déclarer yoo xam ne di nga ko gànnaayoo. si am na këyit yoo xam ne di nga ko gàllaa gànnaayoo. Mhm. ndax ku juddu am nga ndey am nga baay. Mhm. il faut nga firndeel que ni sa ndey diw la ah. sa baay diw la. moo tax ñu ñu sukkandiku ci ñaari acte yi ñu parents yi am. Mhm. pour jox la acte d'état civil. pour wax que ni tamit loolu am na solo parce que boo demee ci mairie yi. li gën a métti ci procédure yi nga xam ne dañ koy jot dans les de droit. droit mm-hmm. mooy nit ki mën na dem mairie bëgg a déclarer doomam mm-hmm. mais bu fa yeggé day fekk wayjur bu goor bi wala wayjur bu jigéen bi duñu am carte d'identité mm-hmm. euh, yaayu xale bu amul carte d'identité wala papam bu amul carte d'identité pour ñu déclarer ko dina xaw a jafe mais di rassurer nit ñi que ni c'est possible dina jafé mais c'est possible parce que procédure bu long lay doon bu longue lay doon parce que du délai Mm-hmm. de déclaration de naissance de femme, c'est un an. xale bu zéro zéro ba un an. ba un an mm-hmm. at. Mm-hmm. mën dem directement à la mairie papa ji ak ji ñu dem déclarer ko à la mairie. ñu certificat de mariage ñu déclarer ko bu fekkee yaay ji moo koy déclarer obligatoirement war na mën a yóbbu certificat de mariage. bu fekk kon certificat d' accouchement foofu amu fa benn solo. certificat d' accouchement am na fa mais c' est pas trop exigé. certificat de mariage bi daal moo. certificat de mariage bi war na war na yóbbu certificat de naissance bi certificat d' accouchement bi tamit mooy firndeel que ne xale bi juddu na. fii la juddoo. Mhm. parce que loolu day wane que ne ban état civil. moom moo habilité pour defal ko këyit bu mu soxla. merci merci beaucoup parce mhm. que. fi nga juddoo foofu lañu la war a déclarer. Mhm. donc loolu euh, am na solo aussi. Mhm. pour nga yóbbu certificat d'accouchement bi. Mhm. mu wóor ne fii nga juddoo kon fii nga war a amee kayit. parce que loolu yëpp am na yeneen procédure yoo xam ne dañ siy ñëw laxasu. waaw ci loolu kan moo kan kan rek moom may le responsable est-ce que yow mën mën diw ak diw ñoo jur euh, doom ji ñu jël ku mel ne ji bi ñu ne ko demal nga déclarer xale bi loolu tamit est-ce que euh, état civil bi dina ko nangu. état civil ay preuve la bu fekkee indi nga preuve yi. yuy wane ni yuy wane ni ak diw moo ko jur yow dañ la mandaté war nga mën a dem ñu yóbbante la nga dek nga déclaré ko. mais aussi li ci gën a am solo mooy këyit yi nga xam ne da nga koy yóbbaale. Mhm. wane que ni xale bi euh, si sëy la juddu yóbbu nag këyitu mariage yu ay waajuram. Mhm. extrait de naissance yaay ji extrait de naissance papa ji. ak euh, certificat d'accouchement am ñu wan ko ne fu ñu ko déclaré foofu lañ ko war a déclaré. moom moo koy wan ñooñu ci ñi nga xamante ne engagé nañu euh, ñu nekk ci buumu sëy di gis ay xale yoo xamante ne judduwuñ ci buumu sëy ñooñu tamit buñ leen déclaré comment ça se xale yi ñu judduwul si buumu sëy tam mën nañ leen déclaré. Hmm. mais dans ce cas ji day dem dañuy yóbbaale carte d'identité papa ji mu reconnaître que ni moom moo jur doom ji ñu déclaré ko. te ci wàllu yoon. xale bu judd ci sëy ak bu judd ci sëy duñ ko duñ ko différencier papa ji bu ñëwee déclaré ko rek dañ koy déclaré mais ba tey si code de la famille bi am na disposition yoo xam ne femmes juristes yi ñu mm-hmm. mais aussi militante des droits humains yëpp ñu ngi ciy xeex mm-hmm. absence de reconnaissance de paternité donc ku jigéen amul droit euh, obligé amul droit dem déclarer turu góor ne kii moo jur sama doom te kooku nangu te sëy amul. donc loolu ay insuffisance c'est un ay insuffisance yoo xam ne ñi ngi fi tey ñi ngi ci jéem a xeex mhm. ba tey amaguñ ci solution mhm. mais aussi tamit wax ka ni ku góor ki bu fekkee ne xam na ne moom moo jur doom ji war na mën a dem déclarer doomam mhm. ku jigéen ki tamit bu fekkee waxtaan na ak ku góor ki mu jox ko carte d'identité ñu dem déclarer seen doom loolu amul benn problème donc déclaration euh, ci sa doom nekkul nit loo xamante ne euh, lu nit war a sàgganee la dafa am importance am utilité am am na importance trop parce que nee naa pour nga exister juridiquement. il mhm. faut nga am acte d'état civil. mën nga fee nekk sa jëmm ji nekk fi mais boo amul kayit buy firndeer que ni yaa ngi fi mënuñoo prouver que ni yaa ngi fi. donc mhm. nit kuy amul état civil dafay dox di dem di ñëw rek mais juridiquement kenn mënul firndeer que ni. kii mi ngi fi. moi boobu moom mooy wane sa existence mooy wane sa nekkin. Mhm. donc lu am solo la. njëriñi officier eh, officier d'état civil njëriñam. officier d'état civil am na njëriñ parce que euh, boo xoolee euh, procureur. Mhm. ci boppam sa moom mooy saytu ñoom seen liggéey. ñoom état ñoom officier d'état civil yi année bi bu jeexee premier au 31 janvier. Mhm. bu jeexee dañuy jël acte kii livret d'état civil yi mhm. ñu dem ñu yóbbu ko mettre ko sous scellé mhm. pour wan la ka ni am na solo trop te nekk na loo xam ne li nga xam ne wàllu fraude dañ ko ci xeex li nga xam ne tamit sincérité des déclarations et tout ça mhm. dañ cee war a bàyyi xel moo tax officier d'état civil yi aussi seen liggéey lu am solo la waaw ci loolu ñoom bu ñu bu ñu jëlee say papier enregistré après ñoom la li ci war a topp lu muy doon buñ la enregistré ba pare dañ lay jox kayit bi firndeer que ni yow enregistré nañ la ak sa numéro numéro boobu moo lay topp sa diir sa giiru dund. Mm-hmm. léegi buñ la ko joxee ñoom tamit seen euh, liggéey boobu dañ koy saytu. Mm-hmm. di ci bàyyi xel. ba nga xam ne at bi bu jeexee livret boobu dañ koy jël indiwaat beneen livret wane que ne di premier au 31 janvier ñi ñoo fi judd di premier au 31 janvier ñi ñoo fi sëy di premier au 31 janvier ñi ñoo fi génn àdduna. donc enregistrement bi c'est impératif et obligatoire. et obligatoire. Mhm. ñu gis ni parfois nit ñëw ci officier d'état civil. ñëw def enregistrement yow officier bi bagage yi ñu la indil wala document yi ñu la indil tu n'es pas convaincu sur le plan juridique kooku ban taxawaay la war am. sur le plan juridique moom mën naa officier d'état civil moom déclaration rek la la lay def lay def buñ ko wonee firnde yi nga xam ne war na tax mu def déclaration da koy def sinon day rejeté même si c'est douteux sinon day rejeté dossier bi ok voilà euh, euh, officier d'état civil bi ban rapport la am ak euh, service yi nga xam ne ñoom ñooy gérer statistique est-ce que am na link boo xamante ne ñoom ñooy tax ñu xam comme ni nga ko waxee. bien sûr am na mhm. link mais officiel. donc ils travaillent ensemble. ils travaillent ensemble parce que bu ñuy defee recensement et tout ça mu war nañoo mën a xam année bi ci commune bi ñaata nit ñoo fi judd. Mhm. c'est pas pour rien que ni officier d'état civil yi nekk au niveau des des mairies. Mhm. donc ñoom ñëpp mën nañoo def démographiquement et tout ça seen liggéey lu am solo la ci loolu. Mashallah. allah euh, ci loolu ñu gis ni le plus souvent euh, dañuy def ay audience foraine di dimbali xalé yi nga xamantene amuñu des papiers fofu tamit ban sensibilisation le population bi wara def pour accueillir ñi nga xamantene ne ñooñu dañoo ñëw pour dimbali leen mais la communication ne passe pas parce que xamuñu. audience foraine lu lu am solo la. Euh, chaque année dafay parce que loolu yep mën nañ wax ni ñàkk déclaration ak ñàkk euh, def procédure bi nga wax ni moy waral nit ki mag ba toll fi mu toll amul papier ñukoy koy defal audience foraine pour mu am des papiers. loolu motax mané audience foraine lu am lu am solo la. parce que pour corriger euh, sàggante mën naa koo tuddee. noonu sàggante mhm. wala ñàkk a xamu way jur yi wala ñàkk a xam communauté yi parce que nee naa léegi euh, euh, état civil nekk na am am na solo solo goo xam ne léegi duñu bàyyi rek papa ji ak yaay ji mm-hmm. mais ku nekk ci sa entourage boo gisee nit juddu ku war a am dem mairie déclarer dara rek war nga kaa soññ pour mu def ko mhm. léegi pour corriger imperfection yooyu mooy tax ñuy organiser état civil mhm. en général avril ba septembre lay am chaque année day am mhm. à part euh, année yi nga xam ne covid bi moo xawoon tëj nit ñi chaque année day am te ci gox yi bu nekk dañ lay defal programmation boo xam ne ñu partager ko ku nekk war nga kaa mën a partager communication bi war naa mën a jàll ba état bi ba askan bi xam ko parce que lu am solo la. Mhm. moom mooy tax nit ki mu ñu mën ko déclarer régulièrement parce que sànq ñi ngi wax ne euh, pour nga déclarer naissance. Mhm. un an la. naam mais pour nga déclarer mariage 6 mois lañ la may. Mhm. loolu bu paasee rek da ngay def liñ nane procédure de déclaration tardive. de naissance wala procédure de déclaration tardive de naissance. Mhm. loolu day tax nga dem tribunal ànd ak sa wa ànd ak ay témoins. ngeen dem ñu ba juge bi may leen autorisation ngeen ñëwaat ci état civil pour ñu déclarer leen. et procédure bi gudd na gudd goo xamante ne. gudd na guddul. parce loo xam ne mënu waroo ko ñàkk. lépp loo ci sonn. ba am ko rek jar na ko. Mhm. loolu laay wax mais mais du ma ne procédure bi gudd na parce que demande bi moo forte. Sénégal en général dañuy bàyyi ba délai passé. te officier d'état civil bi bu délai bi passé amul droit déclarer la. Merci. ko lay doon. merci wax naa ni moom liggéeyam si boppam dañ koy saytu. Mhm. parce que livrel boobu lu am solo la. bi duñ ko bàyyi sax 31 mhm. décembre a tëj ko def ko sous denc ko déclaré waat keneen. Mhm. loolu moo délai xel bu mois bi passé pour le mariage un an bi passé pour le la naissance dafa war ñu dellu au tribunal dem régulariser fofu juge bi mo lay may autorisation nga ñëwaat ñu déclarer la si année ci état civil bi nekk en cours. Mhm. loolu moo tax ma ni c'est c'est important léegi audience foraine yooyu tamit day tax au lieu kon nga dem tribunal di rend di jël rendez-vous di dem di delluwaat. Mhm. tribunal bi mooy ñëw wàcc ci askan wi dem ci gox pour régulariser situation à l'état civil. ok est-ce que possibilité boobu non région yi amee la possibilité la ko Dakar euh, c'est dans l'étendue du territoire Sénégal yëpp lañ koy te dans les tribunaux dañ fay en septembre la. ok mais ku bu nekk day am programmation donc bu fekkee dañoo programmer gox bi période tel ba période tel war nañoo fexe ba askan wi euh, être au courant askan bi yëg ko mais daf jël aussi lijjanti këyit yi nga xam ne moom lañ war a yóbbu pour euh, mën a def loolu pour mën a bénéficier aussi audience foraine yi donc période la chaque gox dañ lay jox benn calendrier bi nga xam ne moom la ñuy fay organiser état civil bi audience foraine yi te bu jàllee déwén la mhm. mais aussi tamit di wax que ni euh, gox bu nekk ak gox goxaan bu nekk am nga période boo xam ne audience foraine yi dinañ ko fa organiser dinañ ko fa organiser ñu gis ni déclaration ni muy amee problème ci état civil naissance noonu la ñuy gisee ñuy am problème aussi ci wàllu mariage parce que duma ma ne ñëpp mais le plus souvent góoru sénégalais

dans toute l'étendue du territoire. Euh, Sénégal a dañ fay dem di organiser ay sessions de formation di organiser aussi ay formation avec les parajuristes di organiser ay causeries di def ay plaidoyer pour que ni nit ñi xam ne état civil loo xam ne góor soxla na ko jigéen soxla na ko mhm. c'est pas parce que da ngay dem déclarer état civil rek da nga am une idée derrière la tête mhm. non c'est pas ça loolu yëpp ñàkk a xam la protéger yow loolu yëpp ñàkk xam la mhm. parce que liñ naan la loi elle est générale et impersonnelle mhm. loi waxul góor waxul jigéen mhm. lépp loo xam ne tamit teg nañ ko fi njëriñu góor la ak njëriñu jigéen la surtout en matière d'état civil et surtout en matière de mariage parce que mariage ñu fàttaliku ne que ni ku góor ak kuy jigéen ñoom ñooy euh, décider euh, réunir pour une union. Mhm. def mariage mais mariage institution là, mhm. nekk na lo xamné parce que famille moy base société. donc mariage do am solo la. Mhm. nga certificat de mariage amna solo bu da ngay dans une entreprise wala ngay ci état bi. ay avantages dina est-ce avantage nga ci bu du du du du pour l'aspect peut-être euh, personnel mais sur le plan euh, du fisc dana la dimbale sur le plan social daf le dimbal sur le plan euh, euh, santé mun na la dimbale loolu yëpp nga faram fàcce ko mbokk yi déglu xam j'ai l'habitude de taquiner les les hommes pour leur dire que mhm. bala ngeen au certificat de mariage da ngeen cee intérêt mhm. parce que góor buy liggéey euh, bu fekkee dafa déposer certificat de mariage déposer ay acte de naissance su ay doomam da ciy am avantage tout à fait da ciy am ay avantages. Mhm. en matière de fiscalité impôt yi lay dagg day wàññeeku mhm. mais non seulement mën nga cee am wàllu IPM donc assurance maladie assurance maladie IPM nga fexe ba li booy faju aussi mu jëriñ la. Mhm. tant que am nañ ci. ñoom daal am euh, tant am nañ si intérêt. dañ koy def seen yitte dañuy dem utal ko seen bopp. daal koy jël denc mais bu fekkee nit tamit euh, jigéen moom mooy ñëw di leen ko wax. duñ ci xaw a sawar trop dañuy dañuy am idée arrière waaw duñ ci xaw a sawar mhm. mais góor ñi gépp góor buy liggéey aussi boo demee sa ressource sa service ressources humaines ñu sensibiliser la wax la état civil certificat de mariage boo ko amee dina la jariñ lii ak lii ak lii dañuy mhm. dem lijjanti ko indi mhm. parfois seen jabar sa du ko lijjanti du ko yëg dañuy fexe ba am kayit bi daaj koy jël ñu denc ko loolu aussi am nañ si ay cas donc au niveau des boutiques de droit parfois nga gis ñu dem parce que da nga gis ño dañ mariage bokul ci programme lol ñak xam la ñak xam la parce que certificat de mariage nga am ko ak nga bañ ko am donc ont euh, bi buñ ba euh, day famille mhm. donc di wax am na ay procédures yàlla tere bu ñu demee ba ñaawoo am divorce war a am. le mhm. divorce il est légal au Sénégal. tout à fait donc euh, mun nañoo dem si jàkk ñu takk sëy. Mhm. mais pour nga divorcer da ngay dem tribunal. loolu nag ñi ko xam bariwuñu. ñi ko xam bariwuñu mhm. exactement. mais euh, wax kon boog ñàkk am état civil nekkul protection ci ñoom. parce que nga am ko ak nga ñàkk am yëpp li loi bi wax moom la wax te bu fekkee ni tamit ki nga nekkal. am na dogu boo xam ne dem na ba lijjanti ay papier ba yóbbu la si yoon. Mhm. Euh, doo wàcc yoon parce que ñu koy wax que ni nul n'est censé ignorer la loi. boo xamee ak boo xamul. Mhm. boo defee ak boo deful yëpp yoon. daf dafa dal sa kaw mhm. yoon day jaar ci yoonam rek. donc boo defee li nga warta def ñàkk kayitu ju kayitu mariage du tee loi bi ñu ñu appliqué ko. donc du caagin ki nit ki euh, marié na ak diw. am na certificat de mariage rek dafay peut-être euh, ruiner ay biens wala mu mu mu extirper wala kenn xamul daal euh, idéologie boobu daal nit ñi am war nañ ko donc changer par rapport à ça. loolu ñàkk xam la. Mhm. croyance populaire la. ay wax la bon. comme ni ma ko waxee rek nga am ko ak nga ñàkk am yoon bu waree dal sa kaw day dal sa kaw. Mhm. nga am ko ak nga ñàkk am. moo lay wax sànq ma lay wax ni la procédure elle est un peu longue parce que je une personne qui m'est très proche de ji nanguwul à l'époque mu def certificat de mariage Il y a y a deux ans le monsieur est décédé il n'avait pas de certificat de mariage instant bi ni les lay commencer, di pour un certificat de mariage ñu mëna a peut-être un héritage ak sen. Il y a problème donc ce qui fait que nous, on un certificat de mariage il a il fallu que ñu un certificat de décès procédure bi daal c'est tellement long ba fii ñu toog mu ngi ci diggante tribunal di yéeg di wàcc. boo gisee samay tàmbali wax nee naa que ni ku dund di nga am di nga am acte d'état civil. ku dee tam di nga ko am. Mm-hmm. donc même ki génn àdduna mën nañ koo defal procédure. Mm-hmm. mi ngi bal sàq tey yal na ko yàlla xaare àjjana mais. ba tey procédure bi day dox. day dox tey acte d'état civil bi mu doon bañ peut-être si dundam. dina mm-hmm. ko am dina ko am. te li gën am solo mooy que nga am ne mhm. parce que loolu da lay protéger. bien protéger sa famille mhm. ak lépp loo parce que yenn am na ñoo dañuy dem ba génn àdduna fekk acte de naissance sax duñ ko am duñ ko am. donc seen famille yi fi des bi am problème ñoom ñooy obligé bi am problème ñoom ñooy obligé di yéeg di wàcc di daj ay coono yoo xam ne. jaru ko woon waa kay mhm. jaru ko woon. donc li gën daal mooy tànk yaa ngi dund nga farlu pour mhm. am sa sa sa état civil. sa mhm. acte yi nga war a am yépp nga am ko denc ko pour protéger sa bop mais aussi sutural sa bop mhm. sutural sa njabot parce que tay ji ñom ñi ngi yegg di wacc ku wara xam-xam ku war ta xam yow dem nga bu yag baye te ba pare di nga mhm. dem lu yag say bien nek euh, fi say njabot diko xol mais ken duko meuna mën parce que mhm. ken euh, ki dafuñu héritage bi dafuñu partage bi say sa alal nekk fi say doom di tumuranke parce que amoo woon ay acte d'état civil ba nga xam ne mm-hmm. mën nañ def partage successoral bi ku nekk jël li nga xam ne moom nga moom mm-hmm. donc ni di waxaat encore une fois ñàkk acte d'état civil ñàkk certificat de mariage du tee la loi c'est la loi te mm-hmm. dañ ko war a respecter te bu fekkee aussi itam da nga jàdd yoon loolu ñàkk acte d'état civil bu mënu tee ñu tegaat la ci yoon donc li gën daal mooy ku nekk jéem ko am ñu gën mooy ku nekk jéem ko am ci Safina FM 98 point 2 tey ñu dalal euh, ki nga xam ne mooy Dialy Dia di juriste membre euh, association bi di association des juristes du Sénégal macha allah tey ñuy waxtaanee problème état civil ak jafe-jafe yi nga xamante ne bu ñu ko yéexee def bu ñu yéexee déclaré dafay am problème ci loolu nii acte de mariage bi amee problème. noonu la tamit la déclaration de naissance di amee des problèmes parce que dañuy gis xale buy jàng dem ba sem mu am problème pour def safe euh, parce que il avait des problèmes à la déclaration wala mu am problème euh, ñu déclarer ko mais déclaration bi ñu ko defal fekk numéro jàmbur lañ ko jox foofu tamit ñu def ci focus. loolu aussi si au niveau des officiers d'état civil lay am lu ci bëri mhm. euh, par exemple ñu juum mais loolu yëpp am na ay procédure yoo xam day corriger ko waaw ay procédure d'annulation dina am après ñu procédure de l'égalisation loolu c'est possible di wax que ni bépp problème boo am bépp problème am si nga xam ne ci ki nga xam ne xelam wàcc màcc na ci wàllu yoon dina la ci ba nga ko corriger mm-hmm. boo demee si boutique de droit aussi dinañ la accompagner defal la préparer la aux audiences euh, ba nga xam ne di nga mën a régulariser loolu mais li nga wax tamit euh, bon c'est très euh, Euh, problématique par rapport euh, à la, la, scolarisation des enfants. Mhm. avec euh, les actes d'état civil. Mhm. di nga gis buy dem ba wara am ba war a dem examen si la ay wayjuram di yegg di wacc pour utal ko kay alors que délai bi parfois fay goudou délai bi day gudd. parfois day passé malheureusement nit ki reprendre mais stress bobu rek. baxul mhm. si xalé bi. baxul aussi si parents yi ci ko wara def examen. da ngay gis ba au niveau bac. nit ki war a dem bac fekk euh, acte d'état civil am am na problème. Mhm. mais aussi stress boobu muy dund boole kook jàng bi loolu yëpp ay problème la. di wax que ni ñu gën a bàyyi xel si loolu ci te éviter ces erreurs la mais erreur aussi bu demee ba am ñu dem euh, dans les structures yi nga xam ne d'orientation ñu orienté la fexe ba régulariser sa acte d'état civil école yi am nañ ci problème bu baax. ci mhm. par rapport à ça. est-ce que foofu tamit AGS en tant que association juriste amu ci benn pàcc bu mu ci parce que comme ni le ko le sénégalais a peur du droit non boo eu waxu droit rek yenn nañ sen dal dem nañ est-ce que tamit s'il y avait la communication communautaire comme on dit def des causeries def def def des débats bu ko defee ñu euh, ki euh, le maximum de personnes bu ko defee ñu sensibiliser len surtout ci le ci mbirum état civil nous avons wax que ne ay même au sein des établissements scolaires mhm. di def ay sensibilisation wax nañ aussi tamit que association des juristes euh, dans toutes les régions du Sénégal di def ay sessions de formation des def causeries mais aussi di former ay parajuristes ñi nga xam partenaires des leaders euh, local ñu former leen sensibiliser leen ba fexe ba état civil ba ñu amati problème projet bi tamit yaakaar naan ci loolu lay dox mais aussi sànq aussi wax naa que ni même imaam yi mhm. dañ leen di woo di leen former di leen sensibiliser si wàllu état civil nga xam ne boo tuddee xale bi ba pare nga ñaax way jur nga ay way juram mhm. ne ko demal nga déclarer ko ne kii à l'état civil mhm. mu acte d'état civil imam boo mayee sëy ba pare ñaaxal sey mhm. mais aussi chef de quartier leader communautaire état civil euh, bon amna solo ba nga xamné ku mhm. nekk daal war nga bay mhm. euh, au niveau de sa vie amna ben acte bo war déclarer war nga sensibiliser aussi dans ses boutiques de droit yaakaar naa dossier yi am ci walu état civil à chaque fois day revenir donc état civil nek na lo xamné problématique bu mag la ci ci mais aussi tamit AJS dans ses boutiques de droit ñi ci orientation en plus de la sensibilisation et de la vulgarisation des droits bo démé dans les boutiques dañ lay defar requête bi euh, requête bi dañ la kay jox wax la pièces yi ngay fournir wax la fan nga koy déposer defal la accompagnement ba nga xam ne di nga ko mën a régulariser. di nga ko mën a régulariser mm. ñu gis nit ñoo xamante ne dañoo mel ne ko man fu ñu dem forfa nit wala forfa doom wala forfa xale kooku est-ce que boo foree foree xale automatiquement am nga droit dem déclarer ko wala am nga droit dem utal ko ay këyit pour wan kii dama koo for mi ngi ak man est-ce droit nit ki nga xam moo for xale. waaw loolu droit bi ci boppam moom moo organiser loolu adoption ngay wax bu ma comprendre bu baax mhm. droit dafa organiser loolu donc di nga dem procédure au niveau de la police mhm. ba pare aussi y a la le tribunal des enfants fi nga xam ne moom moo lay dem ba nga xam ne mu defal la adoption légale mais mënoo dem ci mbedd rek nga for xale yóbbu nee nañ que ni xale ay waajuram ñoo ko jur. Mhm. mais sa protection c'est sous la responsabilité de l'État. ok donc ku dem for xale rek dugal sa kër bàyyi fa donc yaa ngi si njuumte. Mhm. te mm, mm, yoon yoon mën na mën na dal sa kaw tout ça est organisé par par les lois qui sont en vigueur. Mhm. li gën a am am solo daal boo foree xale nga dem déclarer ko à la police ñom ñu war la yoon bo paré nga dem ci boutique de droit yi ñu orienté la ba nga xamné di nga mëna def sa adoption légale. Mhm. parce que nekul xalé bi da nga ko for rek. que dañ koy nangu ci ay wajuram jox la ko mhm. mais dinañ xol ay wajuram dinañ def ay enquête ay mo mi ngi dans tous les tribunaux mhm. ay mo dañuy liggéey ci loolu am solo def sen enquête ba ñu xam yow mi euh, ngëneel mooy tax ñu xale bi moo nekk si yow moo tax ñu jox la ko. di wax que duñu xool yow mag bi ko for sa intérêt ci moom mais xale bi lañuy xool intérêt ci yow door la ko mën a jox. waa parce que loolu même ci wàllu bu ñu demee ba sëy amatul. Mhm. tàqalikoo bu am tas bu amee liñ naan divorce. bu ñu demee ba mu am sax dañuy xool ci ñaari wayjur yi kan moo gën ci xale bi. nekkinu xale bi ci ban wayjur la gënee. Mhm. ñu jox sokkakaa jox. ah du ñu wax kii mooy yaay rek moom lañ koy jox du wax kii mooy yaay moom lañ koy jox du ñu wax kii mooy baay moom lañ koy jox. parce que xale bi euh, papaam moom moo ko war a dundal. Mhm. dund bi moom ala kulli alim papaam la parce que moom mooy chef de famille. Mhm. puissance paternelle bi moom moo ko yor mais xale bi psychologiquement ban environnement la gën a mën a màggee gën a développé fan lañ koy gën a mën a. protéger saytu ko yar ko ba ëllëg mu mun a jëriñ boppam jëriñ réew mi dañuy xool ci bañ way jur la nekk ñu jox ko ko mhm. bu fekkee papa ji moo gën ci xale bi tribunal da koy jox papa ji bu fekkee yaay ji moo ci gën tamit ñu jox ko yaay ji donc loolu au préalable dañuy def enquête dañuy def enquête mais aussi juge bi nga xam ne moom moo yore procédure de divorce bi mhm. wax naa ko sànq ma fàttali ko xëy sëy ak nit ba mu neex la rek ne ko fase naa la mhm. génnal sama kër mu dem lool amatul mhm. wala nga sey ba mu neex la nga ne damay tas sey bi nga mhm. génn sa kër jëkkër dem mhm. lool amatul bu fekkee da nga sey ba mëna mënatoo nekk ci sey bi da ngay dem nga def procédure de divorce si biir procédure de divorce bi nag foofu la ñuy déterminer la garde des enfants xool xale bi juge bi xool xale bi ci kan la gën mu jox ko ko ba pare loolu aussi duñ ko def automatiquement dinañ dem woo ay def ay enquête tribunal des enfants xool kan mo gën ci xalé bi ñu jox ko mais ba tay xalé bi bu nekké ci yaay ji tam papa ji daf ko wara jox. droit de visite. Euh, da day am droit de visite mais aussi daf ko wara dundal. pension alimentaire pension alimentaire. donc di wax que ni donc à plus forte raison en matière d'adoption. lool aussi ay enquête la ñu xool kan mo gën ci xalé bi. néna xalé donc état. l'enfant est placé sous la protection de l'état. de l'état parents ñoko jur mais c'est l'état qui protège l'enfant merci lol moo tax ñu teg fi structure yooyu yëpp ñuy saytu ngëneelu xalé bi ak nekkinam xol tamit xalé bi fan mo gën ci mom ñu yobbu ko fa bu fekke ki ka bëgg adopter aussi euh mom mo gën ci xalé bi parent wam yi d'accord ñu jox ñu jox ko ko wala bu fekkee ay waajuram dundatul tamit bu fekkee moo gën ci xale bi ñu jox ko ko sinon aussi am na ay structure yoo xam ne comme centre Guindi état moo ko moom mun mhm. nañ fa placer xale bi pour un temps déterminé maison la rose bi waaw la rose mhm. tamit ñu ngi fi ñooñ privé la mhm. c'est une structure ah, ONG la comme ñun mais dañuy accompagner waaw dañuy accompagner xale yi xale yi ñi nga xam ne dañoo nekk dans des difficultés foofu tamit dañ leen fay héberger mais structure bi nga xam ne état moo ko moo mooy centre Gindi mhm. macha allah mu doonoon tey Diady Dia di juriste macha allah ñu recevoir tey ci plateau euh, studio El Hadj Omar Foutiyou Tall ci Safina FM 98.2 ñu waxtaan waxtaan bu am solo bi jëm ci wàllu état civil ci loolu Diady euh, boo doon tàggoo ak mbokk auditeurs yi ba beneen incha allah lan leen di wax lu lu jëm ci wàllu problème yi nga xamante ne c'est lié à l'état civil lan ngay donc di euh, gën a ñaax nit ñi rek ni ñu gën a farlu. ci déclaration yi nga ne lañ war def événement yi nga ne moom mooy ñu mais aussi tamit wax que ni ba délai passé war corriger ko. mais aussi tamit bu fekkee dafa am ay erreur état civil aussi mën corriger. que état civil à tout moment dans les structures ñu gunge la orienté la. di wax aussi tamit boutique de droit yi ngi à Dakar mais aussi dans les autres régions du Sénégal di wax que ni am aussi numéro vert. 800 805 805 ku si woote mën nañ la jox ay orientation yi nga xam ne moom nga war a jëfe ba régulariser sa état civil lu am solo la ci dund nit mhm. mais aussi nit bu demee ba génn àdduna aussi lu am solo la donc à tout moment war nañ cee bàyyi xel mhm. te fexé mu nek lo xamné ne lu régulier la mhm. di contane si émission bi donc di leen remercier ci invitation bi aussi Merci. merci beaucoup Djali Jahdi juriste membre euh, association des juristes euh, sénégalaises machallah allah ñu dalaloon ko tay ci studio la Hadji Omar Foutiyou ñu waxtaanee état civil mi nga xamante euh, dafa am ay problèmes yu bari yo xamante ne nit ñi ñu ngi koy euh, du ñàkk euh, bañ ko def mais ñak xam euh, genre plateau sensibiliser leen xam déclarer que ça soit mu acte de naissance que mu acte de mariage que mu même acte de décès parce que euh, cursus normal donc euh, nañ ci xel bu baax ci mbokk yi ñu joxante dig dajé ba semaine prochaine inshallah, ak benen invité benen thème fi ci studio la Hadji Omar de l'autre côté ñu remercier nos techniciens Djibi merci allez au var Djibi merci allez au var Djibi merci allez au var Djibi merci allez au var Djibi merci allez au var Djibi